ñuy une autorité administrative yi nga xam commencé à sous-préfet ba ci kaw ñoo ñu jox autorisation ndax dañu dem wuti autorisation avons aussi la sécurité bi nga fait ne ñëw nañu fi ñoom ñoo def enquête bi ba wax sous-préfet ni gis nañ ni problème du Inch'Allah, un ben problème d'homme. am kon ñoom it ñëw nañ fi muy la gendarmerie. PETIDAS nag benn projet la ba nga xam 43 milliards le gouvernement Sénégal fait. 3 milliards yi lañ ko may mais 40 yi banque mondiale moo ko lebal bi ko banque mondiale lebalee ñu war si liggéey 9 communes muy commune ñiij di commune nu Gandon di commune nu Fass Ngom Ndiébène Mbaan Jama Roq Sèr ak Kër Momar Sarr fii si Sénégal amagul benn projet bu mat 40 milliards bu nga xam ne juróom-ñeenti commune ñoo ko bokk démb rek ministre agriculture wax na ne am na benn financement wu 900 milliards mais Sénégal yëpp ko bokk muy lu ëpp juróomi téeméeri commune lii nag 43 milliards pour 9 commune kese buñ ko séddalee woon mathématiquement commune bu ne day am ñeenti milliards mu des 7 milliards pour fonctionnement même bu dee sax du noonu lañu koy séddalee ñoom ndax mun na am yeneen critère mooy critère yu yaatuwaay critère yu pauvreté critère yu population yëpp mun na am waaye nag 43 milliards ku waroon am ñeenti milliards xanaa war nga am ñaar lu mu tuuti tuuti te amul benn commune booy dox ba gis fa nga xam ne mun nga wax ne mat na milliard am na ñoo xam sax wax nañ seen commune la fa ne matul 100 millions bi njëkk bi mooy préfet loo bii moom moo mooy première beneen bi mooy PDIDAS moy ñaari point yooyu préfet je crois que buñu fi fii ñëw dañuy yobbu ndox mi à 250 km cinquante kilomètres dañuy dédommager borom jardin yi té waxta waxa waxtaanu ñëw population bi loolu je crois que du wara mëna mën ñun duñu mëna d'accord ci loolu duñ fi nekk rek ay meubles ñun ñoo nekk ci dex bi ñu ko yóbbu à 200 kilomètres 300 kilomètres moins de 300 kilomètres te mënuñu am à 2 kilomètres yi nga xam ni nit ñi pour ñu naan sax problème la. boo demee dans la commune de Mbaat nga dem dëkk bu ñu naan Sagay ba pël yi dañuy fanaan ci ndox ci teen yi pour am ndox pour lu ñu naan de laa wax de da ngay gis pël ba nga xam ni day nelaw gudd bëccëg bi guddi gi yëpp da koy def ci teen yi pour nandal juróom wala mu am ndox. te pourtant à 3 à 4 kilomètres rek mënuñu am ndox ñuy nangu ñuy yóbbu ndox nag à 300 kilomètres wala à 250 kilomètres ñun ñi nga xam ne nooy jusa yi dëkk ci ndox mi mënu ma ñu am ndox mënuñu sax am un hectare ba nga xam ni dañ ñu ko aménagel suñu warta wala ñu génne fa ndox pour ñu mën population fi mën fi jëriñu kon ñun ñoo ngi sonn sonn ba nga xam ni te noo ngi ci ndox mi ñeneen waru ñu si mën a bénéfice u ndax Dakar di ko naan te commune Mbane mënuñu ko naan commune mi mënuñu ko naan Dakar je crois 370 kilomètres la boo demee dans la commune de Mbane boo génnee 70 kilomètres mu jeex te ndox mënuñu accès si ndox mi ci naan encore nandal seen bàyyi ma suuf baa nga fi ni gàññ mënuñu ko bay kon balaa ñuy yóbbu euh, ay 250 mètres euh, ndox war nañ ñu 70 km ñu naan suñu jur naan si ñu bay ci etc kon projet bobu nun mënuñu ci d'accord te ñëwuñu waxtaan ak population bi d'accord ñu si tey d'accord ñu si ëllëg point boobu laay wax ci lool deuxième bi moy pédidas 43 milliards sur les 9 communes xam ngeen commune bu né ñaata milliards la war damay fàttaliku Abdou Diouf bu muy bu muy gouverner. Habib Thiam nekk premier ministre ñu jox ko 40 milliards mu doonoon événement bu rëy ci Sénégal ñu ni Sénégal 40 milliards war na mën a développer léegi nu ñëw 9 communes 43 milliards gisuñu fenn fu mu figurer nañ nu wax milliards yooyu fan la dugg ñun gisuñu ko gis nañ dañu def benn tëli àmbaan aménagé fa lu ñu fa aménagé du mat du mat 20 hectares motu ko te du aménagement bu àgg sax. 43 milliards pour commune bi war na si am 8 milliards benn milliard benn 500 euh, millions demul sa demul demul demul sa aménagement boobu. kon nañ nu wox xaalis boobu fan lañ ko dugal commune Mbanaka moom commune ngi commune les neuf communes kon ku nekk war na ci bénéfice bu nañ nu wax xaalis boobu fan la dugg 43 milliards en leer nun moom la ñu gis bu ñu gisee nag fu mu dugg nañ nu ko wax.

ba nga xam ne àgg na ci population yi kon noo ngi appelé président xamal ni ko les deux projets là yi nga xam ne dafa ñëw ñun suñu gox muy suñu neuf communes yi projet Ferlo d' accord uñu si parce que amuñu benn bénéfice bu nga xam ne benn dañ si bénéfice loolu ñeneen ñoo ciy bénéfice d' accord le Sénégal benn la mais nous nous sommes nooy riverains yi ñun noo fi dëkk comme que noo dëkk si ndox mi nag ndox mee tax nu installé fi suñu liggéey ak suñu lépp ci ndox mi de ñun ñun ay privé lañu duñu ñi nga xam dañuy fayu salaire dañuy laxasu ànd ak suñu ay njaboot dugg ci àll bi di bay à nos moyens amul benn aménagement état ba nga xam ne mas na ñëw si ñun ba ñuy dégg milliards yooyu di dem dinu romb ñu koy yeneen di ko bénéfice d'accord uñu si nañu dégg asalaamaaleykum wa rahmatulah waaw ah, kon jërëjëf bëgg yaama ñu wax kàddu gu Malick Fall. suñu demee fi nga xamante fa lañ jóge muy communautaire damaan yaa ngi fa du jeex du xaaj waaye doo gis ko la tontu copie bi am na demande yu def 10 ans kenn du la wuyu te benn bailleur bu ñëw indi xaalis balay am 2 mois ñu may kon jaay wax. business li nga bi tax ak bi ñun dañ ak Kër Momar ndax benn benn individu xëy ñoo ko commencé waaye individu yooyu sax dañu mos waaye li nga xamante ne moom mooy sëy moom di village yi daanaka defuñu fa dara mën naa ni seen aménagement pompage yi ñu ngi toll ci fondement te projet bi jeex na cinq ans ci fondement lañu toll gas fondement ak suul diwo euh, girage tool yi àggul daane lu ñu garab kon man sër damay wax nii bépp sëy bu fa nekk mënuma gis ni xanaa surfacturation waaye gisuma ma fe fenn foo xamante ne mën nañ def nañ fa 200 millions si lu nit man teg bët kon nag loolu moo am sër moo am kër Momar am fépp kon nag ñun luy suñu tànk mooy nay leer plateforme bi nga xam ne nay leer ñun dañ koy apprécier taxaw fu ñu taxaw dinañ fa taxaw incha allah si kàttanu yàlla daal waaye li fi am kenn mënu ko wax sax daal kenn mënu ko wax kenn mënu ko wax business mooy préféré bi ñun gis nañ ni daanaka lor la si ñun rek ndax li tax lor la suñu mooy wax guñ ñu ba léegi ñi nga xamante ni dañu nekk ay baykat yu ndaw def seen mooy bopp gas seeni canal préfet la bu ñëwee ñoom nan la ñuy def ba mën a am ndox euh, beneen bi ci des mooy euh, dex gi dama jàpp ni balaa ñu koy dikk mu dem à deux cent et quelques kilomètres ñi nga xamante ne doomu waale yi nekk fi à vingt kilomètres dix kilomètres amuñu ndox ñoom war nañ leen mën a gëstu ci projet boobu waaye war ñu mën a jël ndox mi yóbbu ko à 200 kilomètres te waalo bu deqi rek ñooy bay ndox mi demul 1 kilomètre baadoole yi li ñu fiy def ak seen mooy bokk ndox mi demul 1 kilomètre et bis des tamit ñuy tàll loxo ñëpp di tàll état Sénégal loxo di ko wax ni balay fenn waal tàkku nga xëy na mos nañ waaye waalu jëri moom benn aménagement amu fi pédage lañ doon yaakaar te pédage zéro kon nag loolu la am lu ñuy wax les bànneex jërë ngeen jëf. ah jërëjëf Hadj Malick Fall Aliou Diop. bu kër Momar Sarr yaakaar naa mu ngi fi bisimilah. Hmm? waa ndimb waaw commune kër Momar Sarr bee tax ma wax. ñi Seur Fass kër Momar Sarr Seur jàppe naa ni 43 milliards su fekkoon woon nañ ko joxe woon dugg na fi dana ma ram feeñ bu baax a baax a baax te 43 milliards du lu ndaw ti boo xoolee commune bu mel ne Kër Momar saar am na mbokk ma ko wax fii léegi jàppe naa ni commune yëpp moo ci gën dee ndax su fekkee ni dañu ñëw foofa bëgg nii dañuy jàppale waalo comme Pédidas te mënuñu gis ni lii Pédidas moo ko fi def lenn lu ci nekk tey dañ naan lii tàmbali woon naka mooy àggul loolu lan la war man doon ci aménagement yi nga xam ne mënoo xool fenn fi nga xam ne da naan fii daal lii jëf la bi nga xam ni Pédidas moo ko far jëf ba kon damay wax ni ñii fii waa dikk ñi nga xam ne ñoom la ñu waxal dama ne ñun ngeen di waxal ndax noonu ci gën a métti ndax ñun noo nekk si tool yi noo nekk ci càmm gi ñoo nekk si napp gi te présidence bu mu fi ñëw dafa fa ñëwoon ngir askanu neuf commune yi te ci ñu lenn lu nga xam ne servir na ko ci kon bu buñu ne 43 milliards def na ko fi damay xam ni kon Cour des comptes li mu waroon def des na kon nañu bàyyi xel ni ñi ñu di joxoon 43 milliards nañu ñëw wan nu 43 milliards yooyu fu ñu ko def ci luñ ko def kuñ ko jox gisuñu 43 milliards ma ne yaakaaruma sax ni lu mat 1 milliard du gën a fi bañ naan 43 milliards kon képp koo xam ne gis nga lu mel noonu man nga ko wax mais ma ni man def nañ fi lenn loo xam ne mën nañ lii lu visible la wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw li ñu wax rek mooy PDIDAS projet la boo xam ni de 1960 ba fii ñu toll projet bu toll noonu amul ndax ñi ko bokk ñoo barewul 43 milliards pour 9 communes bu ñu ko doon séddoo kenn ku nekk day am 4 milliards mu des 7 milliards pour seen fonctionnement mais bu fekkee sax warul demee noonu lu dul critère de sélection bi wala critère de d' investissement bi xëy na mun nañ ko jël si démographie mun nañ ko jël si wàllu indice de pauvreté mais lu métti métti ko waroon am 4 milliards kon war nga am 2 milliards. yan communes yooyu tey. mooy commune u Gandon Fass Ngom Njeben Ganjool Ñiic Mbaan Jama Ronk Séer ak Kër Momar Sarr waa ñit ñoom dañu gis ni daal dañ leen waaw waa ñit nag bu ñu waxantee dëgg sax si wàllu investissement PDIDAS li mu def ñiic defu ko fenn mais bu kenn ku ne amee waree am fukk yow nga am ñett ñi si des am ñaar ak benn yow mi am ñett boo dee yuuxu victoire kon xamoo li nga doon lu mu doon kon xamoo li nga waroon am tey buñ ko doon misaal dafa waroon na kenn ku nekk waroon na am fukk ñii ñi jox ko ñeent ñi si des am ñaar ñii am benn ñii amuñu dara kon bu ñi dee taxaw naan man am naa lu kenn amul kon dafa xamul li mu waroon am mooy laat li si des nag mooy am na GIE yu fi nekk boobu moo gën nekk problème bi. parce que j'ai PDIDAS bi muy démarré dafa ne woon maire du ñu interlocuteur président GIE e yi nga xam population ñoo leen fi teg ñooy seen interlocuteur diggante le maire yi yëngu def seen lobbying politique ba bokk ci affaire mais PDIDAS bu muy démarré GIE e yi kese la waroon waxal mais GIE e yooyu mu waroon waxal nag nga xam population ñoo leen fi teg PDIDAS bu une ni direct rek juróomi GIE yi fi nekk jox 962 millions ça pose un grand problème kon ñu ngi laaj GIE bu nekk ñaata la si am rawatina GIE ñi émergent ndax booba buñ ko woon équitablement ku ne day am 192 millions te lu tax ñu gëm ni PDIDAS am na lu mu joxe gëmuñu chiffre bi nag waa ndimb ñoom wax nañu ni jot nañu seen GIE ba fa nekk jot na plus de 50 millions ñoom assuré nañu ni dugg na seen conte 80 80 millions jot nañ ko. 92 millions. ki jabaram jiite GIE mu ngi fii. nee ñoom jot nañ 92 millions waaye problème bi si nekk mooy dërëm mënuñu ko si génne ndax seen maire ba dafa ni kooku jiite GIE bokkul ak moom parti kon day bloqué GIE moo tax ñoom seen xaalis ba tey ma nga fa laaluñu si dara juróomi at mënuñu si dara loolu chef de village yi mos nañu daja rek def benn wax ak maire ba mu d'accord ñu am lu ñu si génne waaye loolu ñu si génne ak fu ñu ko mën def am nañ si droit parce que chef de village dëkk yëpp si d'accord kon bu ñu ko sax ñoo moom seen alal

ñu ngi bëgg GIE bu ne def bilan ñu xam GIE bu nekk ñaata la jot beneen bit GIE bu am juróomi at présidentielle sax njiitum réew sax bu amee juróomi at dañ koy renouveler waxuma ak ak assemblée ak mairie kon GIE bu def juróomi at war nañ ko renouveler kon ñu ngi demande ñu renouveler GIE yëpp yi nekkoon si turu das bi si des nag ñi joxewoon seen suuf tey bu ngeen rombee daa ngi gën suuf ñu barrière ko defuñu fa dara mënuñu ko liggéey. buñ amone benen partenaire tay sax mënuñu ko jox kon dama wax ni PDIDAS nañu wax ni wala état Sénégal wax ñu kat moy suñu interlocuteur buñu ñu demee kat lañuy waxal mais lu dul PDIDAS ta ko yor légui mais kan ci SAED kooku lañu bëgg xam bi nak ñu ngi wax état du Sénégal le président Macky Sall ak son premier ministre Amadou Ba le président assemblée nationale Amadou Mam Diop nga xam ci département bi la dëkk pour 6 milliards. waa ndakaaru alinti ñoom ñoom Guy Marius Sagna ñoom Mbodj yuuxu nañu ba def rassemblement ba premier ministre recevoir na leen ki wax neen ni gouvernement di leen dem assemblée expliqué ñun nag ay baykat lañu ñee yuuxu nañu si 6 milliards ba premier ministre Amadou Ba recevoir na leen ñun nag 43 milliards la ñuy yuuxu kon ñu ngi koy déglu moom Amadou Ba ba xam lan lay def koordinateur di collectif pédidas na l'air, demeurant à Nick. Déclaration de Nick. Le pédidas constitue un projet phare du PSE, mis en place par le gouvernement du Sénégal avec l'appui de la Banque mondiale et des Fonds pour l'environnement mondial FEM pour un financement global de 43 milliards de francs CFA. L'objectif principal est de développer une agriculture commerciale, inclusive et une gestion des terres dans la zone du lac de guerre et du Nala, à la réalisation des infrastructures physiques, irrigation et stockage. L'appui aux institutions publiques, en particulier les communes, et au secteur privé tout au long des chaînes de valeur horticole, à fort potentiel de valeur ajoutée, de compétitivité, de création d'emplois et de stimulation des exportations. Le PEDLAS intervient dans les régions de Saint-Louis et de Louga, notamment dans les départements de Dagana, de Louga, et de Saint-Louis et neuf communes Gandong, Fasngom, Ndjeben Ganyol, Nik, Mban, Djama, Ser, Ronk, Kermomassar. Un projet ne saurait être plus ambitieux ni plus important si les principes d'équité et de transparence conformes à la loi 2012-30 portant création de l'OFNAC étaient respectés. Le collectif Pédas qui regroupe des ressortissants résidant dans les zones d'intervention du Pédas à travers ce rassemblement suivi de points de presse vise à attirer l'attention de l'État sur la situation que vivent les populations suite à la mise à disposition de leurs terres au projet PDDAS pour un partenariat gagnant-gagnant avec les investisseurs. Le PDDAS ayant fini la quasi-totalité des terres reste non aménagée. Les travaux prévus dans le cadre du PEDAS non achevés et les populations restent sans interlocuteur. Nous solutions d'être édifiés sur beaucoup de zones d'ombre, notamment le montant allié sur les, au GIE par les 25, sur les 25, 23 GIE dans les fonds Pédidas. le bilan de chaque GIE, le, le renouvellement des GIE, l'interlocuteur des populations propriétaires des terres mises à disposition du PDDAS. Nous sollicitons fermement un audit du PDDAS.